jàkkaarloog Sénégal yi waxtaan ci réew mi. incha allah plaisir partage alors tey dañoo bëgg taxaw tuuti ci tension politique yi ak li mu jur fan yi la weesu ci euh, ak jamono ji sax daanaka ci réew mi euh, ñu bëgg samp ab laaj naka lañu ñu nar a def ba génn ci li ñu nekk nii daanaka guuta la sax mën nañ koo tuddee noonu. Hmm. waaw guuta la bu jafee génn. ndax dafa yàgg <clears throat> depuis des des des mois euh, ay weer mais aussi ay années. ñi nga xamante ni dañu dañu am ay ay ay personnalité politiques aussi bien au pouvoir que opposition yi nga xam ne dañuy jël comme méthode defante. defante bu euh, ñu mayante dara euh, ñu dem ba gis ni effectivement dootul adversité kujje rek. Mm-hmm. mais dafa mel ni noonoo c' est ça personnel. Euh, affaire boo xam ne c' est personnel alors loolu loolu c' est c' est dootul problème institution. Mm. vous savez xam nga institution am na solo ci réew mais ay nit ñoo koy animé. Euh, gis nga Donald Trump bi mu ñëwee États-Unis rek États-Unis dafa am problème insti dafa mel dafa am problème institution. alors que mm. États-Unis amul problème institution. gars yi dem envahir le le le capital. gis nga yu demee noonu pour dire que Euh, comportement nit ñi dafa am solo ci préserver la paix ak la stabilité d'un pays hmm. alors bi ñu bi ñu ñuy nekk ci loolu nekk ci loolu euh, ñu gis ni euh, pouvoir bi def na ko Khalifa Sall lu mel noonu def ko Karim Wade heureusement ab Abdoulaye Wade à l'époque mu ni bu kenn manifester xalifa bu jigéen ñi def tuuti mouvement rek Dakar mais ñëpp rester républicain ba yàlla def tey ñu ngi wax waxi amnistie parce que dal nañ ba yàlla may leen loolu. Euh, si wàllu Pastef et Sonko gisuñu dal ko am fa ñoom li ñu jàpp mooy defante euh, donc la slogan garsa garsa nga xam ne pour répéter ko sax problème la. ñu ñu def ko euh, slogan politique ñoom itam maanaam maanaam tanewuñu ñee <laughs> donc kenn tanewul sa morom donc ñaari ndox yu tàng du seralante comme ñaari ndox yu tàng du seralante situation bi catastrophique la la jur. heureusement pour Sénégal euh, institution yi dafa soli les forces de défense et de sécurité nekk ñoo xam dañu républicaine te loolu lool daf ñu sauver ci lu bari ba pare ñu am benn soupape de sûreté mooy les guides religieux les foyers religieux ak euh, les bonnes volontés euh, les chefs traditionnels ñëpp ñi nga xam les forces vives nga xam ne du seetaan lu ñaaw loolu dimbali ñu également également nit ñi aussi dans une certaine mesure neex nañ waxal aussi parce que dañu jékki-jékki rek affaire bi mel mel ni lu sedd te kenn xamul pratiquement euh, lan lan moo jur loolu euh, suñu réew aussi yàlla dimbali ñu ñaan am na fi euh, loolu aussi barke la mais pour génn ci pour répondre sa question je pense que <clears throat> li ñu war a def mooy fexe tout pour respecter les institutions ñun ñëpp laa wax <laughs> pour commencer par le pouvoir dem ci opposition bu ma nee respecter les institutions mooy xam nga loi dafa am ñaari dimension yu nit ñi di fàtte la lettre rek la ñuy gis maanaam loi bi nee na lii lii mais dafa am l'esprit <laughs> maanaam lan moo tax ñu def loi boobu ñu ñu sabab loi bi c'est extrêmement important président de la République dañu am benn système depuis Mamadou du hein parce que crise yi yàgg na Sénégal crise ñaari nit yooyu euh, du Dia Senghor depuis 62 Senghor dañu ah non naa naa changé système bi def léegi régime présidentiel nga xam ne bu njëkkoon dafa am président conseil tout ça régime présidentiel bi Senghor presque jël tous les pouvoirs mais régime boobu moo commencé à essouffler système bi parce que euh, boo joxee pouvoir nit ki pouvoir yi bari évidemment su ko mu jouer le jeu su ko neexee du jouer parce que imagine toi bu maître Ablaye Wade waxoon euh, euh, deuxième comme ni ko ñenn ñi doon waxee amoon na ay prochains yu doon wax ni Wade gagné na au premier tour Euh, moom mooy yeewu 10 heures mu def conférence de presse le lendemain ni non non gagné ma <laughs> on va au second tour avec Macky euh, imagine toi bu jëlu woon disposition yooyu euh, suivre Farba suivre Serigne Mbacké Ndiaye et cetera donc day day daal di nekk leneen pour wan la ni rek ci ki nga xamante ni mooy la clé de voûte des institutions mooy le moteur institution yi. kooku dañuy xaar ci moom lu bëri bëri bëri pour mu dekante <clears throat> les situation waxuma ne justice du warul def liggéeyam justice moom il faut mu def liggéeyam ak yeneen institutions yi il faut ñu def seen liggéey ñi war a arrêté arrêté ñi ñu war a traduire en justice ñu traduire en justice ñu war a ñi ñu war a condamné ñu condamné leen mais en toile de fond bu neex ba ca fond ba <clears throat> le président la république am nay outils yu ko yu ko institutions yi may pour que Eh, yenn yi mu teg fa eh, kudd concam yenn yi mu mu maasaale ko fexe ba jàmm ñëwaat c'est possible hmm. te eh, la dialogue national heureusement dañu lancé dialogue bi en même temps c'est comme si kenn <laughs> xamul lu indi coïncidence boobu mais de toutes les façons dialogue bi war na may les acteurs les forces vives ñu fexe ba jël fa ay solutions yoo xam des solutions de crispation lay doon hmm. mais pour loolu il faut également ñu jël ay <clears throat> ay mesures fortes mesure forte de décrispation te mesure forte de décrispation yi mu ngi ci respecte calendrier républicain yi fexe ba les acteurs politiques les vrais acteurs mën a participer aux élections ñu bañ a def comme beneen beneen nga xam ne Patrick Talon dafa def tout pour éliminer tous les adversaires ba nga xamante ni ñi ñi ko ñi ko contre ñëpp wër na la ni ñii moom mm. ay poids plume lañ dañu leen di daaneel ay yaaw jàll lañ. <laughs> mais mais doyen. waaw bu ñu taxawee nag ci li indi lii. Mm-hmm. mooy une décision de justice. maanaam alxames bii passé bi ñu mm-hmm. toog fii. ñu ngi xaar juge bi dogal ci li nga xamante ni. mooy affaire Sweet Beauté bi ba ñaari at yi. te loolu aussi euh, Ousmane Sonko condamné nañ ko mais ba léegi xamul. la suite. la suite mi ngi toog këram ñi ngi ko bloqué ndax kaso lay tëdd. Mm. ndax fan lay jëm est-ce que yooyu aussi buñ ko réglewul mën nañoo xam fan lañ jëm fii ci Sénégal. waaw décision justice bi euh, Sonko bi ñu ko jëlee ci caravane bi boo seetloo bu mu jógee ci caravane bi rek presque lañ ko dugal prison. ba léegi parce que bu ñu jëlee sa téléphone. ni kenn même sa avocat du dugg foofu prison la. Mm-hmm. yow doo génn sa avocat sax du fa dugg waxuma laa keneen yow yaa ngi prison. booba laa jàpp man à mon niveau. avant le verdict donte prison sa avocat bu fa demee dañ koy bàyyi mu dugg. waaw de donte sax prison bu am na avocat bi dañ nu muy defee dañ koy dugal mais fii déjà dugal nañ ko blocus boo xam ne dafa niru ci man à l'époque ma ne ah mais Sonko daa mel ni condamné nañ ko de <laughs> parce que waxaguñ ko mais en réalité mu ngi dans une forme de prison alors verdict bi yaa sur le plan technique ak légal mënuma wax dara le juge parce que. Euh, un magistrat la deux moom moo lire dossier bi man liruma ko deuxièmement man duma magistrat donc sur le plan légal mais sur le plan de l'opportunité et de la légitimité de la décision il un problème parce que quand même débat public yëpp ak débat au tribunal mu ngi tourner autour euh, menace de mort ak viol comme relâché du chef d'inculpation maanaam foofu gisuñu fa loolu jar ñu condamné ko ci menace de mort ak kii ma je pense que dem chercher corruption de la jeunesse ça ça pose problème parce que c'est vrai que l'article 324 alinéa 2 am na ci suñu code pénal c'est vrai protège les enfants de 16 à 21 ans mais xale yooyu nga xam ni seen discernement dañuy jàpp ni seen discernement seen ràññee si àddina des na donte nekkatuñu mineur parce que bu doon mineur article 320 la foofu détournement de mineur mm. mais fii ay magi jëm lañ mais magi jëm lañ dañoo desee way parce que amaguñu 21 ans mais xale yooyu ñuy protégé du xale yu nekk ci salon de massage xale yu nekk seen pooju yaay la fe ñun nañu def attention par rapport à sa bu fekkoon man maay apprécier la wax à partir de ce moment là dinaa jàpp ni effectivement euh, comme relation nañu sa sa leader politique par rapport li nga xam ne moo indi woon débat bi depuis deux ans mooy menace de mort ak viol à partir de ce moment là je relaxe man laa wax man à mon niveau donc loolu mooy le problème yaa problème de légitimité et d'opportunité am na ba peut-être décision moom voilà a moo tax nag euh, est-ce que surtout événement aussi du dépendre ci loolu exécution bi exécution bi également xam nga justice aussi dafa dafa sew le juge décernewul le mandat à à l'audience dafa bàyyi le procureur le procureur mu jël ay dispositions pour arrêter le gars ou ne pas arrêter le gars kooku ça c'est de la diligence du procureur or boo nee procureur c'est le parquet le parquet dépend du ministère de la justice qui dépend de la présidence autrement dit autorité publique yi léegi ñoom ñoo war a apprécier de l'opportunité de l'exécution ou non de cette décision foofu ñoom nekk ñu ngi ba léegi ñu ngi ci légalité fenn rek la ñu violer la légalité mooy ce gars ni ñu defee ni ñu ko defee blocus foofu y a un problème nangu ay portable am foofu y a problème foofu je pense que am na lu ñuy wax abus de abus de pouvoir évidemment euh, ay avocat am le fait que mënuñu accéder à lui loolu aussi dafa aggraver la situation. parce que sànq da nga wax lu am solo ci affaire respect des institutions mais li koy dëgëral moo aussi li nemee ko en tout cas ci dossier bi. waaw ni ñu traité Sonko yaa ngi wax sànq. <laughs> muy yow wala keneen ku mu ci mënoon doon. très bien bu doon kii yaa ngi nu mais justice noonu lay fonctionner la boo demee ba ba biir rëbës. néeg yi bokkul. am na néeg VIP néeg euh, lëmpal gars yi fa ñuy dajaloo tànk dankalikoo noonu am na néeg yoo xam ni euh, voilà parce que am na sama classe bi boo leen dugaloon ci dankalikoo ba amaana du ñu dund trois fan ñetti fan ndax seen niveau de vie. Euh, donc dañuy tenir compte de tout ça justice mënoo ko appliquer sans une application humaine mënoo def application mécanique. Hmm. de la justice parfois sax da ngay dem ba Europe yow africain bi nga def violation de la loi bon le gendarme le policier bi lay appréhender xam na ni yow xamoo peut-être da nga jóge ci beneen civilisation. mu dawal mu daal ni bon euh, c'est comme ça c'est comme ça prochaine fois pour def lii ñun daf ñuy dal souvent bu ñu demee bu ñu tukkee dans le dans les pays européens nga xam ne bokkuñu peut-être niveau de vie pour wala ni justice c'est vrai il faut l'appliquer. mais application bi day intelligente. mais justement application bi day mais euh, par exemple suñu jëlee situation boo xamee ni euh, le monsieur en question. Euh, biñ ko woowee wuy juwul moo woote désobéissance civique ci ay sorti euh, il yaa a eu des menaces envers les juges est-ce que le juge moom mm. aussi su jëlee situation yooyu yëpp mm. est-ce que moom tamit Euh, opportunité bi ngay wax est-ce que du jàpp ni que euh, moom mooy mu condamné ko par rapport à sa xam nga lu tax question bi am solo le juge wane na ñaari forme d'indépendance ci décision bi forme d'indépendance bu njëkk bi mooy dafa wane ni moom suivrul procureur parce que bu suivre bu suivre réquisitoire procureur. le gars aurait dix ans. pour viol ak menace de mort mu ni non donc juge bi toppul procureur toppul état bi beneen bi mooy. juge bi wane ni sensible à la clameur publique maanaam coow li am si biti ak menaces yi moom yëngalu ko techniquement xam nga loolu laa foofu laa jëkkee dama ni légalement ak techniquement <laughs> man reproché wu ma ko dara parce que loolu mu def noonu tout le temps dañ koy gis tribunal tout le temps requalifié et cetera ni chef kii comme nañ lii dañ lay condamné lii parce que dossier bi gis nañ ci ñoom élément yu leen may ni effectivement am na lii mais au regard du contexte wax naa ko une fois cet homme politique bi ñuy wax noonu li ko dal nii mënul mënul weesu boo doon seetlu métti rek ak sanction mënu ko weesu mënul weesu métti pourquoi un jàng na ba si foofu nekk inspecteur des impôts ñu dax ko mu reprendre sa vie à zéro reyantewaat ba nekk chef de l'opposition au Sénégal ñu dàq ko dàq bi mooy un non seulement mënatuñ ko élire mais moo ci waxoon mënatul sax voter mais loolu lu ko gën a metti troisièmement ñu taxaw tribunal wax musiba ci ci sa vie privée ay musiba yu terrible ay révélation ay déballage mais loolu lu ko gën a metti trois yooyu trois yooyu boo ko boolee jaratul nga dëkk ci yokk yeneen <laughs> je pense que à un certain niveau il faut que tamit ñu ñu am benn benn analyse pour parfois mettre à la place de la personne def na erreur originelle xam nga nañu wax ne péché originel mm. mooy dem ca sama salon ba mais ñun ñëpp xam nañ ko suñuy waxaale yàlla wax dëgg. wuti lu muy wuti foofu li Omar Pène doon wax loo doon wuti. <laughs> lu mu wuti foofu léegi à partir du dugg na fa péché originel boobu moo ko topp jusqu'à présent et sanction populaire bi mu ci am ak li nga xam ne moo am na ci gàllankoor par rapport ak sa carrière politique mais loolu si <laughs> boo si yokkee la <laughs> danga koy acheter. léegi euh, léegi grand ñu dellu si waat ci li ñuy dund nii muy impasse bi ngir génn ci. Euh, am na ñuy ruumandaat lu yàggul nii dara sax di wax naan ndax du ñu bàyyiwaat euh, président Macky Sall mu demaat ba ci kanam puusaat élection yi am na ñu jot a tontu loolu bu ñu ko ñëwee dugal ci coow li dafay yokk joote gi wala dafay xaj na ubbi benn buntu ci soit ñi ànd ak moom wala ñeneen ñi nekk ci beneen boor bi. yokk problème. Hmm. pour discuter jaloog baa ngi en cours ñu ngi xaar ay décisions fortes pour que poussé da nga rek président dafa bëgg rester longtemps c'est jaru ko. il n'y a pas péril en la demeure. quoi respecter les institutions. nañu def suñuy élection ku bokk ñu xam ne bokk na ku bokkul nga xam ne bokkul. Mm. parce que dal na fi ñu euh, lu metti Karim Wade. dal na fi lu metti Khalifa Sall mais gars yi dañ muñ ba si foo xam ne yàlla defal na leen actuellement ñu wax ay loi d'amnistie et cetera donc aussi il faut que dans a vie également nit ñi xam la yàlla destin nga xam ne yàlla mooy dogal yàlla mooy fal fondamentalement et ku si nekk ci ñun am dal googu bu bataay jotee nga xeex ko bu wax jotee nga wax mais à un certain stade il faut que nga mën a muñ nga mën a xam ni destin présidentiel du ay du lu yomb <laughs> dugub palais c'est pas évident mais Sénégal bu nekk mën nga postuler mais nag dafa am fii ay réalité parce que le président Macky Sall euh, waxuma bu ma nee président bi du juriste du juriste bu dee bu du xam loi du bu ma nee xamul loi du question loi yi nii xam na mais esprit maanaam amul naan nandaluñ ko nandalu juriste hmm. bu doon Abdoulaye Wade ñimewul def noonu bu doon Abdoulaye Wade ñimewul yóbbu Karim wala kaneen exil parce que nekkul suñu institution hmm. mais Macky en matière juridique naan nandalu lu juridique moo tax daf ko dafay ñime yenn yi moo tax mu ñimee bloqué Sonko sans aucune base légale parce que amul hmm. nandaluñ ko droit bu doon président bu ñu nandal droit am nay décision yoo xam ni du ko xalaat a jël daal. mais à quoi servent les conseillers ak euh, ministères yi yeneen nga xam ne xam ne même moom bu xamul. c'est ça waaw voilà. le ministre ñoo la gën a xam droit fuuf. mais la ñu waxoon Ismaïla dama lay renvoyer à son livre de 2008 Ismaïla moo théorisé la limitation des mandats en Afrique. Mhm. waxuma loo Sénégal de. en Afrique pour la postérité moo ci bind téere tey lu mu wax. il dit contraire parce que pouvoir moo mel noonu à partir du moment où da nga nekk dans les sphères du pouvoir soo deful attention yow sa maturité bi nga amoon lucidité bi nga amoon en matière d'analyse fii moyens yi ñu lay tegal ak opportunité yi ñu lay tegal day ëpp doole sa capacité intellectuelle parce que ñaar ñaar la nit gën a ragal ci àddina yan ñaar la dee ak ñàkk mm-hmm. dee ak ñàkk feebar moo leen ñetteel mais dee ak ñàkk léegi nit ñi boo leen dugalee nit boo ko dugalee ci benn réseau am bu am bi bu bees am am mais boo moytuwul moom day fàtte effectivement lépp loo xamante ni amoon na ko comme conviction pourquoi parce que am am boobu daf lay sax fa fa euh, dàqal risque feebar bi ak risque yeneen toroxta toroxtaa nga xam ne moom la nit gën a ragal maanaam nit ñi bañ laa ak yu kenn xamul yoo xam ne nit bëgg ko et surtout fexe ba nga xamante ni yow fa nga foogoon jamais ni di nga fa àgg nga àgg fa. loolu moo tax souvent suñu intellectuel africain en un certain niveau da nga naan kii est-ce que jàng na. <laughs> parce que question. la mu jàngoon ndax da koo réer. waaw waaw wala kii. alors euh, sama sama réalisateur El Hadj Malick sax daf ñu dimbali parce que nag coow li coow li ñaar ñii la. cette bipolarisation conkom Sonko Macky mooy coow li parce que ñenn ñi dañoo jàpp ni mhm. Macky day teg ay pexe pour faagaagal sonk mu bañ a bokk ci élection yi mhm. ñii nga xam ne ñoo far ak Sonko nee nañu élection du am Sénégal te Sonko bokk ci mhm. ñaari parti yi nan la ñuy def ba concilier ces deux positions extrêmes am na ñu ne Sonko ak Macky dañoo war a waxtaan wax nañ dëkk mais mënta nekk fi mu ne nii pour nga toogal nii Sonko toog nii Macky nii boo koy wax nii réellement day difficile. la F24 mooy cadre bi nga xam ne cadre bu bees la cadre d'action la entre l'opposition la société civile ñoo ko bokk. yeewi ñu nga fa Pastef ñu nga fa ñoom ñoo mën a dimbali Sonko def médiation bi. gis nga F24 ña fa nekk ak seen seen leen yàlla may. ci wàllu patriotisme xam réew xam médiation xam paix xam sécurité mais ñooñu suñu doxee rôle boobu mën nañ fexe ba rapprocher les positions yu mag yi ak Sonko def médiation bi ci war ba waxtaan am directement wala indirectement man je pense que foofu laa gis man espoir bi est-ce qu'ils ne sont pas euh, en mën naa nekk. Mm. moo gën parce que su fekkee parce que dégg naa leen ñu def nii dañuy def benn sitting dañuy def benn marché et mm. tout ça tout ça c'est bien mm. euh, parce que loolu day tax day canaliser les forces vers des manifestations légales mën na sax euh, wàcce tension nit ñi parce que am na benn cadre légal bu manifestation pacifique bu ñuy programme donc loolu rek mën na wàcce tension bi mais des na je pense que ñoom ñoo wut war a wut ay canaux de dialogue yoo xam ne dina leen permettre ñu dugg présidence wax ak Macky ñoom waa F24 leader yi fa ne xam ne ñoo gën a xam médiation. am nañ expertise en médiation sur le plan international. xam nañ paix xam nañ sécurité xam nañ instabilité xam nañ risques yi am ci réew mi. nga xam ni les forces occultes ñun dañu foogoo ne dafa sori. Mm. mais forces occultes yi ñu ngi fii. Ah, ci biir réew mi donc nañ def attention. Mm-hmm. à partir de ce moment là ñoom war nañ mën a waxtaan ak Macky trouver ay éléments de consensus. Mm. mais boo nee Sonko demal waxtaan ak Macky <laughs> ñoom ñaar mënuñu tuñu toog nii directement. ñu toll moo tax. ñu toll e fu Sonko surtout moom moom toll coow li ak mm. ay nit dañuy àgg foo xam ni ay ñeneen rek ñoo mën a seral mais du ñoom seen bopp. te ñoom dañoo àgg foofu ñoom ñaar. Mm. merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup euh, des ak.